spécial safar ñun ak yéen ci bii promédia équipe bu promédia fas yéene ànd ak yéen première bés bi njëkk ci weeru safar ba bu keroogee di safar fële ci Touba. yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Promedia dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu dund ci bis màggal ci njëkk yomb njëkk lu ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bi Pro Média kon màggul 2022 ak Bi Pro Média ñun ak yéen incha allah. égal ak di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi dañ ci ànd ak Serigne Saliou Seck dal leen ak jàmm kenn mënta yendu ci njombe fanaan ci kaas ci kaso ngay mujjee fanaan yi njombe la xew ca Kédougou am na ñu ca nekk ci garde à vue l'observateur ne tey laa leen di wax la enquête ba njëkkee leeral ndaw si Dura Diallo la tudd ñu ko daan wooye mami ay atam toll ci fanweer ak juróom-ñaar dafa ëmb ba am juróom-ñeenti weer matal waroon a mucc demoon ca hôpital bu Kédougou waaye la fa am ba ndaw sa faatu te journal Futurs Médias bi wax ne moom la enquête bi fésal rafetul ci wax waaye nag li leer te wóor moo di ne autopsie ba procureur bi santaane woon la mu wane doy na waar waral ba gynécologue ba di Léonce Mbaat Faye anesthésiste ba di Abdoul Aziz Dioum ak infirmier ba di Bakary Diabaxate taq nañ ci ripp ba nu jàpp leen bés bi la journée moo tax ba waa SATSUS dakkal bépp liggéey SAMES itam dem ci grève générale ndax ne lan moo tax ñu téye seen naataango yi ci luñ amalut benn enquête libération yéene kaay mel ni ko naan leen enquête kay am na ndax président Macky Sall yëkkatee démb ca jam ñaajo waral ba am nataalam daanaka daj na fépp ci yéenekaay yi nu xëyandool las quotidien lu leer ba mel ni midi la Macky Sall wax ci pétrole beeg gaz bi mu ne nin ko nara yore ak doxalin gi ba fii amul benn sikki sàkk te it amul luñ cay nëbb le quotidien Macky Sall kay jeexal na coow li ba noppi ne gaz beeg pétrole bi liñ ciy wax naan nii la ko nguur gi nara yore du dëgg mu ne lépp a leer te it jarul coow sud du quotidien la ci Macky Sall def ngir jeexal coow li l'info ne coowul bi bu doon la nekk ñu ne Macky Sall na ko ko le soleil ne ba noppi woote ci booloo ngir ñu amal ci exploitation bu mucc ayib l'observateur ne foofee itam fa la président Macky Sall xibaaree ne nguur gi lu toll ci juróomi junniy milliards ci xaalisu CFA la soxla ngir yeggale projet yi jëm ci pétrole beeg gaz bi ci ab bomb la ay farandoom toog moom Macky Sall turbine yéen a moo ko wax enquête yéen a ne waa Benno Bokk Yaakaar kay mimi moo leen ëlëm ndax naka fàtte nañ ko fi lu yàgg mu nekk a di assemblée nationale source a ne Ahmed Aidara itam nee na jiite pencum ndawi réew ma di assemblée nationale la bëgg waaye yéenekaay bi nee na am na ñeenti jurisprudence yoo xam ne moo tax ba fii Ahmed Aidara ne du ca dellu gannaaw le témoin ne coow daal tàbbi na ci kan moo nar a jiite pencum ndawi réew ma di assemblée nationale waa parti socialiste ne ñoom moom faaw ñu dem ci yoon ak maire bu Guédiawaye di Ahmed Aidara ndax nag dañoo dégg a moom la ñuy voteel waa PS di parti socialiste loolee metti leen ñu ne dañuy porter plainte Ahmed Aydara Ahmed Aydara ba tey ci biir yéenekaay bi ne mësu koo ëllëg waxi nopp loolee ay kàddu la yoo xam ne ay tuuma la ko jàppee lii quotidien ne waa PS daal dogu nan te nee nan dañuy plainte Ahmed Aydara journal bi yokku ci ne lii lépp moo ngi xewe ci làngug politique gi l'observateur itam ne làngug politique gi ci ngay gisee waajur ak doomam nekk ci waaye duñu bokk fu ak Barthélemy Mourlo itam ca lan bokk ba ci imam Mbaye Niang ak Mame Mbaye Niang ku ci nekk yow ak sa doomi deret bokku foo leen aw ci làngu politique gi ñun ñu aw feneen wax ci leneen jublu ci màggalu Tuubaa gi Direct News xëy fésal nataalub Serigne Touba boole ci di faram fàcce lan moo waral màggal gi ak la ci Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul santaane Vox Populi moom it xëy wax ci lu yaatu boole ci dinu gën a xamale Serigne Abdou Samane Mbàkke mi nekk doomi ni mu nekkee woon suufi ni mu jànge ay jaar-jaaram ba ci tukki yu bëri yamu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 yow mi nga xamante ni que da nga bëgg a màggal ci sa biir kër wala nga bëgg a màggal ca dëkk bee di Touba wala nga bokk ci ñuy organiser bi ci safar yi ci Sénégal ak li ko wër équipe bi Bprod-Média dina fas yéene ànd ak yéen jox leen équipe bu doy moo xam yow mi bëgg a wane sa màggal say bernde ak xew-xew yi nga xamante ne moom la ñu ci bis màggal ci njëkk lu yomb njëkk lu xewle ñu jox la équipe bu ko mat caméraman reporter defar la si vidéo ba mu jàkk dugalal la ko ci suñu biir chaîne bi di Bi Pro Média kon màggul 2022 ak Bi Pro Média ñun ak yéen incha allah